dafa tollu woon ci di wax ñaari commerçant yi ni ñu wuutee bu ñuy génne asaka commerçant bi nga xamee ne day jënd di xaar nag loola dem ba néew lool fe mu jaayee ko njëg ku bare bari ak commerçant bi nga xam ne day jaay rekk ci njëg ga xew jënd tegaat nga xam ne xaalis du sax ci loxoom marchandise itam du sax ci loxoom ku jëkk ki dafa mel ne moo gën a jàppandi ci wàllu joxe asaka ndax moom bala ko asaka war mu jaay loolee mu jëndoon te ñu faye ko ko xaalis kaas mbaa wurus nde buñ ko fayee woon marchandise it day bàyyi rek ba ba marchandise moomee jar moom daal bala ko asaka war moom mu jaay lu mat nisaab li rek lam jar li matul nisaab rek asaka du ko war te lu jarut it ba ba muy jar bañ fay ko njëgg muy wurus mbaa xaalis asaka du ko ca war bu marchandise ma yeexoona jar ba am ay ati at ci loxoom wala ñu ameel ko ci ay bor yoo xam ne ñu ko koy yeex a fay ba mu am ay ati at du tee bu marchandise ma jaree da ciy génn asaka rek benn yoon buñ ko fayee bor yi itam da ciy génne asaka benn yoon daañu wax nag bu fekkee ne commerçant ba day boole yaar yëpp am na lu muy jaay di ko jaayee njëgg xew rek noonu jënd tegaat am na it loo xam ne da koy jënd di ko xaare waxtu mu néewe ba jafe mu door koo jaay nga jamono yi commerçant yi jaay njaay mi xew daañu jënd lu mel ne dugub walla gerte xeeti mbay yi door a ñor di ko denc di ko jëme ci waxtu woo mu néewee ba jafe ñu mën koo jaayee njëg gu bari kon commerçant boobu dafa boole yaari xeeti njaay yëpp daañu wax ci kanam luy àtte ba jaaykat bi nga xamee ne moom njëg xew rekk lay jaaye te mu ëpp ci jaaykat yi mënees na ko yaatal bu baax ndax moom ñi ci ëpp noonu la ñuy jaaye jaaykat bi mel noonu dat ba mu war a asakaale bu ci àggee daa war a seet lépp lu mu yor ci marchandise moo xam ne jarut mu xaymaa ko njëg nga xam ne moo ci yàlla ci yooyu jamono ndax ndegam njëg moom day yëg ko wàcc dañuy seet rek waxtu wu muy génne asaka bëgg a xam nu mu toll na xool lu ci nekk ci marchandise ba jarut fu njëgam toll mu xaymaa ko loola bu amee sax marchandise moo xam ne yàgg na lool ay ati at te jarut waaye nag xam na ne desu ko wàcc ñàkkut lu mu tollool ci njëg na xayma fa njëgam toll rek mu jàpp loola génn ca la ca war mu seet nag la mu yore ci xaalis kaas mbaa mu dénkaane ko foo xam ne moo ko fa bàyyi bu ca bëggee jot dal cay jot ak borub xaalis mbaa wurus duñ ko ameel boo xam ne waxtu fay wa jot na te wóor na ko ne mook lu mu téye ba àggal ñooyamoo loolu lépp mu seet ko seet nag bor yañ ko ameel bor yañ ko ameel nag boo ci xam ne du wurus du xaalis waaye wóor na ko ne dana ñëw amu ci nattable ni ki lu fayoon njëgg ñu war koo andil marchandise ma wala jula bu mu joxoon njëg mu war koo andil lam ko woon jëndloo yépp da koy xaymawaale bu ñu ko ameelee nag bor boo xam ne xaalis la waaye délai ba dafa ak seegut ni ki des na juróom-benn weer ñu fay ko ko waaye wóor na ko ne moom daañu ko ko fay ba tey ñu ne borub xaalis boobee da koy xayma foofu nag da nga ne waaw marchandise moom xam naa xayma ko waaye nag jëmmi xaalis moom nu ñu koy xaymaa jaaxal na ma mel ne buñ ko amee loon ñaar fukki junni yoo xam ne buñ fi amee juróom-benn weer lañ ko koy war a fay te wóor na ko ne moom daañu ko ko fay ñu ne ko nag doo génne asaka yi ñaar fukki yëpp dañuy xayma ñaar fukki ya la nga ci war a génne nga xam ko génne ko nañ koy seete mooy dañuy jàpp ne ñaar fukki junni teew mi teew li nga ci mën a am tey tey ci marchandise kay jaay du la nangoo jox lu toll noona jub ak yow juróom-benn weer lu may dalaa defal njëkk waaye bu dee ku wut rek bénéfice moom seetul dara wër ñoo yem kon dañuy seet boo yoroon tey ñaar fukki junni bëgg ay peeri dàll tey tey lu la ca jaaykat ba nangoo jox ñu ne tey day kon bu dee teew mi teew mën na laa jox fukki peer ak juróom ci ñaar ñu xam ne kon tey ñaar fukki junni yu teew ci peeri dàll yooyu mi ngi tolloog fukk ak juróom ñu ne nag waaw bu fekkoon ne moom mii bu ngeen juboo woon mu jox la ay peeri dàll te bala nga koo fay ñu teg juróom-benn weer nga door koo fay ñaar fukki junni ñaata peer la lay nangoo jox dana ko ko jaral ñu ne ah xanaa juróom-ñetti peer mbaa fukk su boobaa loolu la ñu wax juróom-ñetti peer ya mbaa fukk ya moom la ñuy seet nag ku ko doon jaay tey tey ci njëg googee ñu wax. nu muy toll nu mu toll rek bu waa ji bëggee xam lu mu war a génne asaka ci bor boobu ñu ko ameel te war koo fay bu ñu tegee juróom-benn weer te daal di xam kon lam ca war a génne mu génne ko ca ci misaal moo mënu joxe buñ ne woon ñaar fukki junni ya bu jëmee juróom-benn weer kiy jaay dàll yi fukki peer la cee mën a joxe bu ñu xaymaa fukki peer ya ci njëg yi nu wax léegi day mel du sori soixante six mille six cent nangam te gis nga ne soixante six mille six cent nangam appanti naag cent mille ñaar fukki junni noonu la ñuy xaymaa borub xaalis buñ ko ameel boo xam ne wóor na ko ne dana ci jot waaye nag waxtu wa ak seegut nga xool nag lee mu waxoon ne laa in lam yar juhoo waxunu ndeem yaakaarut jot ca bor ba aw kaana wala bor ba nekkoon xardan di ak abal ngir yàlla fa in xabadahoo ndéem ngëb na ko rek bu ci jotee zakkahu mu asakaal ko li xaamin ñeel menn at am na xeetu bor boo xam ne moom buñ ko wax ne ko génneel ko asaka day bàyyi bàyyi rek ba bam cay jot muy bor boo xam ne yaakaaru caa jot ndax ka ko ko ameel ku jub la waaye daa mënta fay wala mën naa fay waaye day ku dëng te mënu ko yóbbu ci yoon bor bu mel noonu dañ koy jàppe ne lu réer baaluñu nangoo ci moom ci doole saa yu si jotee rek génn ci asaka benn yoon doonte sax ay ati at la itam benn la ci génne asaka nga dolli ca lu mu able woon rek ngir yàlla nga xam ne wuti ca woon bénéfice xaalis mbaa wurus woo xam ne da ko able woon rek ngir yàlla kooka du ko ca tegal dara jaay mbaa jënd waralu ko woon abal rek ngir yàlla la woon lu mu yàgg-yàgg bu jotee rek génn ci asaka benn yoon lu may nag am nay ati at jutu ca waaye nag moom moo nangu wutoon a fayu ndax daw asaka bu loolu taxee moom bu ci jotee war a seet na at ya toll at mu ne mu génneel ko asakaam day seetluwaale itam su jëndee loo xam ni xeetoowut ak la muy jaay ni ki moom day jaay lu ñuy lekk ak lu ñuy naan waaye na mu gis leneen lu jaay loo xam ne xeetoowut ak loola ni ki ab pàkk buy jaay rek wala aw fas wala ab sareet mu ne kon na ko jënd ngir jaayaat ko nga xam ne kon loolee mu jënd ngir jaayaat am ca bénéfice mook la muy jaay ca boutique ba ci lu ñu lekk mbaa ñu koy naan ñooye moo rek ba àggee ci di xayma da koy xayma waale ni ki bu fekkee ne pàkk ba yéex naa jar wala fasu am ba sareet ba it du tey at mu ne ndegam moom jënd ngir jaayaat moo taxoon dafa yéex a jar rek faaw da koy xayma seet na asaka ja war a toll mu génne ko wa xawluhu atam ma moom mu diir xawlu aslihi mooy atum cosaanam la dañoo wute ci boo yoroon xaalis kaas jënd ca marchandise nag bëgg a jaay ko jënd am bénéfice te waxtu wa nga amee xaalis ba ak waxtu wa nga jëndee marchandise ba ngir jaay bokkuñu mel ne ci tamxarit nga amoon million dem ba ramadan nga door a jënd marchandise ubbi na place tàmbalee jaay sooy seet sam at da nga koy tàmbalee ci tamxarit ma nga amoon million ba am na nga koy tàmbalee ci ramadan bi nga tàmbalee jënd ko jaay am na wuute waaye moom daa wax rek la gën a wóor mooy tam xarit ba nga amee woon million ba ca ngay tàmbalee at ma doo ko tàmbalee ci ramadan bi nga tàmbalee jaay ak jënd am na nag ak jàppandal gu ñu def foofu mooy su fekkee am na marchandise mu muy jaay moo xam ne amagul ci loxoom at te it fayagutoon njëgg dañ ko wóolu woon rek jox ko marchandise ma kon bu dee xayma du ko xayma waale du ci génne asaka waaye nag niñ ko waxee woon léegi loo xam ne moom ak seegut waaye fay na njëgg bu noppi na seet la mu ci war a génne asaka mu génne ko ca loo xam ne itam bañ ko ko joxee léegi mu di ko jaay mat na at faygul nag njëgg waaye mat na at ci loxoom loola it dana ko xaymawaale loolu yi nga xam ne nag am na ci loxoom at te faygutoon njëgg day mel ne bor la bu mu gàddu bu ñu àggee ci wax bor bay tax asaka wàcc ko na xam ne boobu ca la mooy loolu mu jënd am na ci loxoom at dafay gutoon njëgg ci xeeti boro yi lañ koy boole wala sarabina i'lam anna allazi yuqawwimuhu lmudiru min as-silai huwa ma dafaha tamanahu wa ma xaala alayhi lxawlu inda wa in lam yadfa tamanahu wa xukmuhu fi taani xukmu man alayhi daynun wa biyadihi maalun wa amma in lam yadfa tamanahu wa lam yaxul xaleyhil xawlu mën na it wa lam yaxilla xaleyhil xawlu xindahu fala zakata aleyhi fii wala tuqawamu déeful xayma al awaani dab ya wal alaatu ak jumtukaay ya wa bahimatul amali ak bahima liggéey dab yi nga xam ne ci lay def la muy jaay ak lu mu bari bari njëg waaye moom jaayu ko da cay def rek la muy jaay du ko xaymawaale bu amee ay machine yoo xam da ciy liggéey rek noonu ki bu dee machine bi day segal baa muy wal du xayma jëmmi machine ba lam ci amee njariñ rek lay xayma moo xam kay jaaya moo xam kay liggéey ci machine ba la jëmmi machine ba ci boppam du ko xayma lam ci amee rek ci njariñ loolu lay xayma bu amoon sax xeetu bahima boo xam ne moo koy sëfal la muy jaay ko jënd ni ki mu yore fas ak sareet di ca teg la muy jaay wër di jaay wala sax jamono yi oto xewee mu jël oto di ci def marchandise may jaay wala nga xam ne oto bi moo koy andil marchandise mi di dem ak dikk yooyu yëpp bu xayma waale jëmmi oto ba wala fas ak sareet ba bu doon avion sax te avion bi day jël ay client rek wala nga xam ne day suuf rek marchandise lam ciy amee ci njariñ rek dañuy seet mote ni saab asaka war ci waaye jëmmi avion ba mbaa jëmmi oto ba kenn du ko xayma mu di ca génne asaka jàpp ne kon moo xam société yi la moo xam commerçant yu mag yi la warukaay yi ñu amee ca liggéey ba ñu dem ak a dikk waaye jënduñu leen ngir jaayaat dañ leen wut ngir liggéey boobee jëmmi warukaay yooyu dee su ko xayma lay bàyyi ko ci liggéey ba ci njariñ rek moom la ñuy seet la jabar ci asaka ñu ko ci génne kon mën ngaa dellu takk foofu ne lépp loo xam ne yoon dane asaka waru ca soo ko wutee rek ngir jariñoo ni ki avion li muy seer seer da nga koy war rek ba oto ba lu mu seer seer da nga koy war rek dara du ca war ci xeetu asaka su fekkoon na itam avion ba mbaa oto ba mbaa voiture ba mbaa sareet ba dangaa bëgg muy liggéey di andi xaalis kon la muy liggéey rek nga di ko am ci xaalis ca la asakay war waaye jëmmi avion ba bu àggee ci waxtu asakaal doo ko xayma oto ba mbaa voiture ba mbaa sareet ba it noonu te nag bu fekkoon na ngaa jënd avion ba ngir jaayaat ko wala nga jënd oto ba ngir jaayaat ko mbaa voiture ba mbaa sareet ba nga daal di boole ci xeeti marchandise yi nga xam ne boo tolloo ci waxtu génne asaka bu dee avion ba jëmm ji ngay xayma fu njëgam toll bu dee oto ba jëmm ji ngay xayma fu njëgam toll bu dee leneen noonu nga seet nag nga ci war a génn ci asaka nga génne ko ca wa i nit ci tamaxandeem dajana ixtikaarun dakkar ci wa idaaratun aku góndeel wata saawa yaa te njamonte ñoom ñaar awax tukkira wala dakkar ceef al aksaru la ëpp fa kullun kon lenn lu ci ne xalaa xukmihi nekk na ci àtteem ba wa illaa bu fekkee demewul noonu fal jamihu kon lépp lil idaarati ñel na àtteb idaara muy àtteb wëndeel ga loolu laa doon wax naa dana ko wax ci kanam mooy koo xam ne am na marchandise yu muy jaay ci prix normal maanaam njëg a xew ak loo xam ne koy jënd di ko xaare mu dem ba néew mu jaaye ko njëg gu bare bare xam ne kon yaar yëpp la boole kooku dañuy seet bu fekkee ne la muy jaay ci njëg ga normal ak la muy jënd di ko xaare waxtum jafee ñooyemoo képp-képp mbaa nga xam ne sax la muy jënd di ko wute jamono jum jafee ba njëgg seer mu ëpp dañuy àtte kenn ku ci ne calam tollool nga xam ne marchandise bi nga xamee ne da koy jaay ci prix normal na ko askal bu àggee ci datub asakaalam na def nañ ko waxoon ci lu mel noonu la nga xam ne itam da koy xaare waxtoom jafe mu door ko jaay ba tey na topp àtte dañ ko ci waxoon wa illaa nag mooy bu fekkee ne yaar yëpp lay def waaye nag la muy jaay ci prix normal mooy njëgg xew moo gën a bari nga xam ne la muy jël di ko xaare weneen jamono bariwut la muy jaay daal ci prix ba xew moo gën a bari su boobaa dañuy àtte lépp lépp far njaayum kuy jaay rek prix normal nga xam ne ba àggee ci waxtu asakaal lépp lay seet lam jëndoon di ko jaay prix normal te jarut ak lam jëndoon di ko xaare waxtuum néewee ba jafe du tee lépp rek lay seet xayma ko génne asaka ja loolu nag daa mel ne jaaykat yi am na ci ñuy boole yaar yëpp waaye la ci ëpp lu ñuy jaay fa saasay saasa ca njëgg ci xew jënd tegaat muy gën a bari dañuy jënd di ko xaare yeneen jamono ni ki jamono ji moom mbay mi door a ñor dana ci am ñu dugg ci jënd diw di ko xaare yeneen jamono mbaa duub maanaam pepp wala gerte waaye daa mel ne am na ci ñoo xam ne la ñuy jaay ci njëgg xew rek moo gën a bari dañuy jënd di ko xaare jamono yooyee ba tey nag mën naa doon koo xam ne du yëngutu sax ci wàllu njaay ak njënd waaye am na lu mu denc loo xam ne buñ tolloo ci waxtu yi gerte wala dugub maanaam pepp ak sëb ci lay yombe waxtu lay jënd nag di xaar waxtoom jafe mu jaayaat ko kooku nag kon la ëpp cim jaayam ixtikaar maanaam dakkar ci lay doon kon nañ ko waxe woon rek lay asakaale tak-tak bi daal mooy ñaari xeeti yaxantu la koo xam ne nag yaar yëpp ngay def su fekkee ne yaar yëpp ñoo yemoo ci nangal leen di defee wala nga xam ne la ngay jënd di ko denc di ko xaare waxtu am jafee moo gën a bari yooyu yaar ñoo bokk àtte dañuy xàjjale yaari njaay ya njaay mu ca ne ñu asakaale ko nañ ko teqalee woon su fekkee ne nag la ëpp cim jaayam daal mooy jaay rekk ci njëgg xew jënd tegaat dana di am sax lum jënd di ko xaare yeneen jamono waaye daal loola bariwut kon na àtte boppam ne njaayam mépp njaayum prix normal la bu tolloo ci waxtu génne asaka lépp lay seetandoo génne asaka ja wal xiraadu xiraad alxaadiru jadi aji teew yu zakkihi dana ko asakaal rabbuhu boroomam kula amin ci mépp at min xayrihi bàyyi ko ju ludul alali xiraad ja in addaara ndéem day wëndeel alxaamilu aji liggéey ja day wax nag boo joxoon kenn capital bu ciy liggéey am lu ngeen diggante ca bénéfice ba li ñuy wax xiraad nga jox ko xaalis mbaa wurus mu dem di ci commerce bu ngeen réglé nag nga am nangam mu am nangam ci bénéfice ba gannaaw bañ génnee sa capital foofu nag kon daañu wax àtteeb ki joxe capital ba ak kañ ko jox luy yoon wa ci génne asaka ki nga xam ne moo joxe capital bi moom su fekkee ne ka mu jox capital ba ñoo bokk fi nekk mbaa duñu umpalante fu mu toll ma ngay xam na liggéey ba demee dañ koy wax ne ko saa yu atum asakaal ma jotee seetal la nga xam ne nag moo war a nekk asaka ja nga génnee ko ci sa poos mbaa ci feneen doonte sax da nga koy lebi te bañ koo génne ci capital ba ndax dañuy bañ nga yàqal ka yoroon capital ba boo ci génne asaka ja day wàññiku waaye léegi mu xam nga rek moom na alal ja toll at mu ne génn ca asaka ja bul xaar ba ngeen réglé bu leen leexee na ngeen def at mu ne ngeen réglé mu tolloog waxtu ba ngeen di génne asaka loolu nag mooy bu fekkee ne kañu jox capital ba tey jaay rekk ci njëgg xew du ca xaarante jamono ya loola jafe muy jaaye njëggu seer a seer kon borom alal ji te nga ma xam na na alal ji toll at mu ne rek na génne asaka ja dana wax ci kanam bu fekkee ne kañ jox capital ba day dakkar ci maanaam di xaar ba loola jafe lool mu door a jaay wa sabara muñ na in raaba ndeem fàddu na fayu zakki te muy asakaal xan sanatil xoddoori walis atum teew ga atum regle ga lu bëgg wax maa la nga xam ne fiihaa nekk na ca moom su fekkee ne kam joxoon capital ba bokkuñu fuñ nekk te it xamut nu loola demee am na cag umpule kon day bàyyi rek ba ñu regle li mu ne atum teew ga mooy at mañ des seet rek seen liggéey nu mu demee la jublu ki jox na ko million mu dem ñetti at dooru ñëwaat at moom ñëwee rek moom la ñuy seet la mu andi buñ génnee capitalam seet la mu am ci bénéfice jëmi at moomee moom na alal ja toll rek la asakaam di toll wa saqata terot maa la nga xam ne saada ëppoon na ko xablahaa njëkk atum réglé googu at ya ko jiitu nag ni ki bu fekkee lii mooy atum ñetteel mi te ñaari at ya jiitu waa ji nee na ko ci laa appelé woon la ma ci amoon awma ko ci at mi mel ni mu ne ko at mu njëkk ma day waroon naa mat million genn wàll atum ñaareel matoon na ñaari million te at bi mu ñëwee nag moom muy million ñaar fukki junni rekk nga xam ne kon at mi mu ñëwee moo yées yépp ndax waa ji nee na ko at mu njëkk ma matoon na million genn wàll atum ñaareel ñaari million at bi ñu réglé nag moom benn million ñaar fukki junni ko it yetti at yëpp ñooyam luñ cee génn ci asaka ndax dañuy jàpp ne yaari at yee jàll lañuy bari bari bopp moom ren mi itam taxul moom mu jariñoo ko kon benn million ak ñaar fukki junni lañu seet asakaam mu génne ko yetti yoon muy ñetti at wa in naqasa ndeem wàññi ko woon na fali kullin kon ñeel na at mu ne maa la nga xam ne fii nekk na ci moom man nga koy firee wa in naqasa ndéem yées na bee nga weesu woon at ma ñu reglee moo yéesoon at ya ko jiitu yépp bii nag moom li mu andi ci at mi ngeen di reglee dafa ëpp at ya ko jiitu woon yépp mel ne mu ne at mu njëkk ma dafa doonoon téeméeri junni atum ñaareel doon téeméeri junni ak juróom fukk atum ñetteel